liggéeykat yu Croix-Rouge sénégalaise ak seen présidente moo ngi woy di ñagal nañu xam ni bu boobaa à partir de 26 lu ñu gis rek ñoo xam ne travailleurs ñoo si ngir wone seen ñàkkub ànd ak ni présidente bi di doxale bi les structure ñu génnee ndongo yi nekk ci biir école Croix-Rouge bi nekk ak ñoom ba seeni waajuru ñëw gannaaw bu liggéeykat yi daal di tollanti seen ñax. arrière de salaire yi ñu ngi ci cinquième mois ay difficulté yoo xam ne moo tax personnel yi mun a toog cinq mois te duñu fayeeku donc loolu la ñu ñaxtu pour loolu deñ ñuy joxañ baaraamu tuuma président Croix Rouge ak secrétaire général am. yaay booy maam booy li nga bëgg def làq doom dóor doom loolu du jàll. lépp li nga xam ne bëgg nga croix jëm kanam dangay boole ñëpp ñu mën a dem ngi élection yi mën a am parce que ñii dañoo jaay ay carte te seen droit la seen devoir la pour ñu mën a servir la Croix-Rouge gannaaw bu ñu jàppee ni mandat wu bi jeex na ñuy sàkku ngir mu amal ay élection générale dem nañu sur le terrain alors renouveler nañu ba mu des quatre départements at yooyu ak assemblée générale des jeunes ak assemblée générale des femmes loolu la ñuy exiger la présidente pour mu renouveler quatre yooyu pour ñu mën a dem assemblée générale nationale. ñu ko woowee ci téléphone présidente bi di firndeel ni ay weer a ngi nii ba tey salaire bi kenn fayu ko waaye rek di xamle ni li waral loolee moom mooy ay jafe-jafe ya nga xam ne ni moom la Croix-Rouge di jànkonteel te jafe-jafe yooyu sax moo taxit ba mënuñoo am fond bi tax ñu organiser élection générale yi ni ko liggéeykat yi bëggee.